alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika muhammadin sayyidil anbiyaa'i wal mursaliin wa alaa aalihi wa man ittaba'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'd mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di leen di dénk suñu bopp ragal yàlla muy def ay ndigalam bàyyi ay tereem waxtaane woon nañ ci xutba bu weesu njariñ yi nga xam ne ragal yàlla am na ko fii ci àdduna gannaaw boo xamee ne xamle woon nan lan mooy ragal yàlla luñ ci jublu waxoon nañu njariñ yi nga xam ne ragal yàlla da ko am fii ci àdduna tey nag kon waxtaan wi na jëm ci njariñ yi nga xam ne ragal yàlla am na ko ëllëg ca àllaaxira njariñ yu bari la nag waaye ñu tënk la ci ëpp solo ba ca jëkk ragal yàlla sabab la ci lii tax borom bi tabaraka wa taala nit ki doon ku tedd fa yàlla te tiraanga fa yàlla moo am solo waaye tedd fa nit ñi rekk amul solo moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ci alxuraan ne ka gën a tedd fi yéen fa yàlla maanaam ki gën ci yéen fa yàlla mooy ki ci gën a ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ñaareel ba moo di ragal yàlla tey tax a texe alfawz nag buñ ko waxee mooy dugg àjjana mu ci sawara borom bi tabaraka wa taala nee na ku topp yàlla kub yonentam ba noppi ragal yàlla noonu la ko waxee wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqih topp yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tereem te roye ko ci ab yonentam alayhi salaatu wasalaam boole koog ragal yàlla lépp luñ ne la lu ñuy tere la nga bàyyi luñ ne lu ñuy def la nga jéem ca la nga ca man nee na ñi def loolu fa ulaika humul faizun ñooña ñoo texe ëllëg ñooña ñoo texe ëllëg maanaam ñoo mucc bokk na ci njariñ yooyu moo di ne ngir nit ki mucc ci mbugalum yàlla ëllëg na góorgóorlu ba bokk ci ñi ragal yàlla borom bi nee na amul kenn ci yéen lu dul dana jéggi jahannama tiim ko muy siraat dana ko jéggi kenn ku ne ci yéen dana ko jéggi loolu moom borom bi dogal na ko jeex na kaana ala rabbika xatman maqdiya kenn ku nekk da nga tiim siraat jéggi ko jaar ci lu sew ruuj di jàll kenn ku nekk sëg mucc la lay musal mooy ragal yàlla moo tax mu ne summa nu la alladina taqaw ña ragaloon seen borom bu boobaa ñoom rekk ñooy mucc waaye su dul loolu jéggi siraat moom fitna la joo xam ne yal na nu borom bi def tabaraka wa taala bu bis boobaa ñu bokk ci ahlu taqwa ragal yàlla mooy sabab sii tax nit ki ëllëg mu doon ajjana noonu la ko borom bi tuddee doon la ko tuddee nee na ajjana jooju mooy ajjana ji nga xam ne dañ koo donnal sun jaam ñi nga xam ne dañoo ragaloon dañoo ragaloon yàlla ajjana jooju muy junj nag mooy jannatul firdaws mu ajjana ji gën a kawe ci ajjana yi gën caa baax gën caa neex borom bi tabaraka wa taala da koo jagleel jaamam yi ko ragaloon loolu moo tax yonente yi ñoo jiitu suhadaa yaag siddiquuna yaag ñooña seen place mooy firdaws ahlu taqwa nag muy ñi ragaloon seen borom ci di def ndigal yee bàyyi tere yi ñooña foofaay seen béréb yal na nu yàlla boole ca yàlla borom bi tabaraka wa taala bégloo na leen ba wone sax seen kër yi ñuy am ëllëg na muy mel mu ne ay étage lay doon ay étage kër yoo xam ne dañ koy tabax tabaxaat yeneen ci kaw tabaxaat yeneen ca kaw bu noppee nee na dex ya di daw ci suuf yooyu nag buñ koy wax ay tur la yoo xam ne lii ñu la won ci àdduna misaal la ci waaye jegewu ko moo tax Abdullah ibnu Abbas radiallahu taala anhu daf ne lii am ci àdduna ci ay xéewal la ak la am ëllëg ca àjjana ci ay xéewal lenn rek lañ bokkale muy ay tur tur ñoo bokk noo koy tuddee waaye bokkul lu ñu doon kon buñ ne la ab étage fii wala ñu ne la kër bul jàpp ne mooy étage pale ba président ba dëkk wala buur ba dëkk ca bul jàpp ne lu mel noona la lu mel noona digganteem ak na àjjana mel melut sax ne takk ndeerub nit ak na nit mel nuruwu ko melul noona kon moo ko dàq waaye nag ginnaaw terme yu mel noonu rek lañ mën a jëfandikoo ba mu leer ndax doomu aadama noonu rek la mën a waxee moo tax suñu borom tabaraka wa taala bu koy xamal nit ñi ca lañ xam tur yu mel noonu la koy jox moo tax mu ne ay chambre la yoo xam ne dañ koy tabax mu tegaloo nekk ay étage dex ya di daw ca suuf nee na nag loolu mooy digee boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko dig ñi ko ragal te nee na yàlla du fausse rendez-vous lu mu la wax rek noonu la koy defee moo tax abdullah ibn amr ibn al aas radiallahu taala anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ajjana ay chambre nga fa néeg yoo xam ne boo nekkee ci biir di gis li boo nekkee ci bitti di gis li ci biir ngir rafetaay ñu ne ko ah, loola moom ku ko yow yonent bi yàlla bi mu ne xanaa ku rafetal wax kooko ko ci loolu lépp boo ko ci ragal yàlla lay dellu ku rafetal wax du wax mukk lu ñaaw du wax lu bon day téye làmmiñam du jëw du saaga du wax lu amut te lu baax lay wax ka ca nee na wa ataama taam na mu nangoo joxe ñam fekk ku ñàkk amul dépense mu jox ko mu lekk togg ñam jox ñu ñàkk ñi ñu lekk nee na wa baata qaiman wannaasu niyaam di jekki ba guddi nit ñépp a ngay nelaw mu jóg taxaw di julli ngir borom nee na ñii ñoo moom kër yu mel noonee nga xam ne day transparent ba ki nekk ci biir di gis la di gis li ci biir ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñoo gën a kawe ay daraja kon ëllëg ndax ca illi yoon lañ dëkk te mook jannatul firdaws benn lañ moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ña féete kaw ëllëg mooy ña ragaloon seen borom kon ndekete mbir mi du fii mën ngaa gis fii ay nit ñu fii féete suuf lool nga di leen romb di leen xeeb ndax yee ñuy sol nam doyadee kër gañ dëkk nam doyadee la ñuy lekk nam doyadee nga defe ne loola moom mbir mi fii la ba tax ngay réeréelu ci kaw kooka ëllëg ndekete kooka fa muy dëkk mooy ca kaw ndax dafa bokkoon ci ñu ragal yàlla kon lu ba ragal ba ragal yàlla kooku mooy solution bu mag bi fii ci àdduna ki ko am na xelam dal nu dund àdduna mën a deme na xelam dal ci ne ëllëg moo féete kaw ñépp kooku loolu doy na sëkk borom bi tabaraka wa taala nee du yemale ñoo ñi ko ragaloon ak ñeneen ñi nga xam ne ragaluñ ko moo tax mu ne ñi ñi gëm di def lu baax nee na duma leen yemale mukk ak yàqkat yi ne ci kaw suuf wala may yemale ñi ragal yàlla ak kàccoor yi taxawale ci kaw nee na déedéet yàlla du ko def ndax borom bi tabaraka wa taala ku maandu la te xam nga ne yamale ñooñu du ak maandute ragal yàlla sabab la ci far bàkkaar te doomu aadama ju nekk xam nga ne am nga ay bàkkaar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na kullu bni aadama doomu aadama ju nekk dangay juum wa xayrul xataa'iina tawaabuun ñi gën ci ñi nga xam ne dañuy juum mooy ñi juum ba noppi jéggalu kon doomu aadama ju ne am ngay bàkkaar waaye nag ragal yàlla di def ndigal yee ko bàyyi tere yi loolu ci lii far bàkkaar yi njuumte yi ci la bokk moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ne wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiaati ku ragal yàlla nee na mu effacé say bàkkaar ragal yàlla mooy tax lépp loo bëgg ëllëg nga jot ca ndax àjjana moom noonu rek la mel mooy loo bëgg am ko amul di xëy naan dama am problème ak nangam laa war a wuti subaak teg ay plan yoo xam ne la nga war a wuti déwén wala la nga war a wuti suba wala la nga war a wuti ngoon loolu amu fa la fa am mooy nangam laa bëgg loola ñëw léeg-léeg sax ci sam xel nga koy wax rek gis ko kon foofa mooy àjjana moo tax borom bi tabaraka wa taala ni mu ko waxee daf na ñooñu lahum fiha ma yashaaun loolu rek doy na sëkk lépp loo xam ne bëgg nañ ko nee na loolu am nañ ko nee na nag loolu payug ñan la kadalika yajzi llahu lmuttaqin ña ko ragaloon ñooña lay faye lu mel noona waaye kat ku ragalul yàlla wéye rafet njort rek loolu du doy léegi léeg dangay gis nit ñoo xam ne dañuy ne ci ay njaaxum di def lu leen soob soo leen waxee ñu ne yërmaande yàlla yaatu waaye ñooñu yàlla tontu na leen bañ daataan wax nee na woon wa rahmati wasiat kulla shay fa sa aktubuha lilladina ittaqaw lilladina yattaquun sama yërmaande ji yaatu na ba mën a muuraale lépp waaye nee na ñi ma koy jox mooy ñi ma ragal kon loolu lu mat bàyyi xel la ñu xam ne yërmande ji yaatu na lool di wax yaatu na lool waaye nag fooy jaar ba bokk ci ahlu taqwa ba mën a am ci yërmande jooju loolu mooy wax fii kon xéewal yooyu ngir nit ko mën caa am day ragal yàlla borom bi nag melalal na leen xéewal yooyu joxe na ci lenn ci ay misaal nee na kon gàttal ba mooy luñ soxla am ko nee na ëllëg ñi ragal yàlla am nañ place yoo xam ne place yu wóor la yu dal xel la yu am sécurité la fi maqaamin amin foofu ku fa nekk sa xel dal la ndax amatoo problème moom say problème jeex na fi jannatin wa uyun nee na ci biir ay ajjana yoo xam ne dex yaa ngay bal dexi lem yaa ngi dexi soow yaa ngi dexi ndox yaa ngi lépp loo ko bëggee rek ñii sol yére yi gën a cher gën a fort ci yére yi muy sundus ak istabraq mu yére yoo xam ne ca ay jamono buur rek moo ko daan sol waaye léegi moom daanaka sooy bo nga ne kenn solatu ko ndax sundus ak istabraq lañ ko daan tudde fii ci àdduna képp suñ la waxee nañ ko daan ràbbe dalay wóor ne léegi kenn ràbbatul yére yu mel noonu ndax yére yoo xam ne zigzag ya cay nekk ay fiil lay doon yoo xam ne oor pur lay doon ñi ñaw ko ba mu mel noonu doomu aadama di ko sol loola moom nit ñi ñëw solatuñ ko léegi ànd ak ne loolu misaal la ci la tax sunu borom tabaraka wa taala di wax ëllëg kon sundus boobee ak istabraq ba beneen mbir la nee na borom bi tabaraka wa taala nee na ñu may leen ay soxna yoo xam ne ci na ayn lañ bokk ñooñu mooy soxna yi waa àjjana amul benn misaal bu dox seen diggante ak soxna yi nekk fii ci àdduna nee na su boobaa lépp luñ soxla rek dañ cay jot te xéewal gu mag ga ca gën a neex nag mooy la yaduquuna fiha al mawt maanaam dee amatut nag bu boobaa faf ndax fi ne kat xéewali àdduna yi lu mu neex neex ak loo nekk nekk ci jàmm ak wér gi yaram soo xalaatee ni lii nag après lu ñuy tegu ñu ne ah, xanaa dee ñu suul ko rek la nekkoon ci sam xel ak neexaay ba sam xel lay daal di yàqu waaye nag fële moom xéewal ga da ngay nekk ci biir ba mu yàgg nga tiit ne waaw lii mbaa amul fu muy yem nga xalaat ne ah dee kat amut woon naa ne laa yadooquuna fiha al mawt kon foofa la yëf ya nekk ragal yàlla sabab la ci nit ki du am njàqare ëllëg du am njàqare njàqare ñaari mbir rekk koy am moo koy andil nit ki muy bëgg a génn àdduna tiit ci njaboot gi fi bàyyi woon mbaa danañ mën a dund mbaa danañ jub mbaa mbaa ba mu bari wala tiit ci fam jëm moom xawfu boobu ak xusn bi xawfu ci lim jëm ak xusn ci lim weesu borom bi tabaraka wa daf ko dàqal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla moo tax mu ne ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun àndandooy péetey sunu borom tabaraka wa taala yi nee na ñooñu duñ tiit ci fañ jëm duñ am njàqare ci fiñ jóge alladina amanu wa kaanu yattaquun inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaaikatu alla taxaafu wala taxzanu ñi nga xam ne dañoo ragal sunu borom tabaraka wa taala mooy ñooñu rek nee na bu ñuy faatu malaayika yi dañuy wàcc fa ñoom ne leen bu leen ragal ci fi ngeen jëm jàmm rek ngeen jëm waaye bu leen tiitit ci ñi ngeen fi bàyyi borom bi tabaraka wa taala moo leen di sàmm dalal seeni xel kon ragal ak njàqare kii génn àdduna te doonoon ku yóbbuloo ragal yàlla muy xëyru zaat kooka amul problème ci yooyu kooka amul problème ci fa jëm ak fi mu jóge te yaar yooyu defe naa ne ku ca am jàmm sa jàmm daal nay maasaloo daal nay mat sëkk borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla bu bis baa ba mbooloo yépp daje nit ñi tiit ñu jàq ñu tàmbali di atte ba kenn ku nekk di jëm sa kër bu noppee borom bi tabaraka wa day def benn nag woote maanaam ab invitation boo xam ne ñan lay woo ñi ragal sunu borom tabaraka wa ñoom la ñuy woo di leen tànn ci biir mbooloo bi di génn ana diw kooko day ku ragal yàlla la woon ana diw diw ñi dajale leen nit ñépp téen ñi di leen xool ñi ne ñii ñu mu ñu ne ñii ñooy délégation sunu borom bis ne ka tey yowma naxshurul muttaqina ila rahmani wafda ñu nekk ab délégation bu wuy si seen borom mu jox leen tiraanga joo xam ne du ko jox kenn bu bis boobaa yàlla na yàlla boole ci ñooña ajjana wala ragal yàlla mooy li nga xam ne bu ëllëgee lu dul woon moom rek duutu tekki dara xarit yaag relation yaag mbokk yaag lépp loo xam ne amoon na ci àdduna luy boole doomu aadama ak doomu aadama fii ci àdduna te fekk ragal yàlla lalu ko woon bu ëllëgee loola ak noonoo lay soppiku ak noonoo lay soppiku yow diw sàngam lu tax nga doonoon sama xarit gis may def loo xam ne ay caaxaan la gis may def loo xam ne ay biddaa la te waxoo ko woon lu tax laayewoo ma woon biir kenn ko man su ma la ko waxoon ni da ngay bañ ñu soppi ko xuloo ba tàmbali kon su boobaa ak noonoo la xaritooga di soppiku nee na nag lu dul ñi nga xam ne dañoo àndoon ci ragal yàlla ñooñu mooy ñi nekkoon ci taqwa di def lu baax di bàyyi lu bon di ci soññante ku ci gis sa moroom xaw a dellu gannaaw nga ni ko ah yow de na nga meloon démb melatoo ni tey gën a la góorgóorlu ku ci dem ba mu nga gis sa moroom dugg ci njaaxum nga ne ko déet yaa ngi def loo xam ne day juuyoo na ak taqwa wartul loolu ñooñu mooy ñi seenu xaritoo di continuer ëllëg moo tax al axillaa la borom bi wax nee na xarit ya xarit ya maanaam xariti adduna ya yowma idin bu ëllëgee baaduhum li baadin aduw nee na bu ëllëgee ay noon la ñuy doon illa al muttaqin ba mu des nag ñi ragal yàlla ñoo ñu seenu xaritoo bu ëllëgee ak xaritoo gu yokk lay doon ñooñu la yox fii surudin mutaqaabiliin ñoom dañuy jàkkaarloo di ziyaarente sax jóg dem seeti kee mu jóg seeti la ngir nekk ci seen jàmm ñooñu borom bi tabaraka wa taala daf leen a wutal place boo xam ne spécial la teg leen fa muy benn chaise boo xam ne maqaad boo xam ne ëllëg turam maqaadu sidq lañ ko tuddee muy benn banc benn toogu boo xam ne ku nekkul woon ci ñu dëgguña doo bokk ci ñuy toog foofa ba ëllëgee ñu woo leen ñi ñëw toog nag dex yi daw ci seen suuf ñu ne ñee ñu mu doon ñu ne ñee de ñooy waa maqaadu sidq ñooy ñi nga xam ne ñoo toog ca toogu ñu dëgguña loolu lépp ay teraanga yu leen seen borom tabaraka wa taala di terangal la teral la mu bokk ci mashahid yowm alqiyaama yi nga xam ne day am ba noppi na kenn ku ne door a dem dugg sa kër ñi ragal yàlla doy na sëkk ñi xam ne seeni yool dañ koy ful borom bi tabaraka wa taala nee na ñi ragal yàlla gëm ko akub yonentam borom bi tabaraka wa taala luñ def lu nekk da leen koy fulal xam nga kenn ku mën a doon boo defee lu baax lu nekk fukk lañ koy ful waaye ñi ragal yàlla nag ñoom lañ koy fulal ba nga xam ne kenn xamul fu muy yem kenn xamul nu muy toll borom bi tabaraka taala nee na da leen di defal ak leer goo xam ne ca la ñuy dox fi ñu jëm boole ko jéggal leen seeni bàkkaar kon mbokk yi defe naa ne fii ci kaw suuf jaamub yàlla bi lim fi am lim fi am li ci gën a rëy du lu muy am fii ci àdduna waaye li ci gën a rëy mooy ak yóbbal boo xam ne dana ko yóbbuloo ëllëg ngir bu wàccee ci bàmmeelam buy jéggi siraat buy àgg ca fa ñuy àttee yóbbal boobu doon yóbbal boo xam ne moo koy musal yóbbal boobu nag benn rekk la ragal yàlla ragal yàlla bu ñu ko waxee mooy topp ay ndigalam topp ay ndigalam mënta nekk lu dul dañ koo topp ci sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu ne na ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngalee woon ñuy jëfe ko noona bañ caa dolli dara bañ caa wàññi dara lépp loo xam ne tere nañ ko ne lii lu xaraam la nga bañ ko wutal yi tur ndax bañ koo ndax bëgg koo jëfandikoo jàpp ne lu xaraam la xaraamal ko ci sa bopp xaraamal ko ci képp koo xam ne daje nga ak moom jottali ko ko ñaari mbir yooyu su ko dikk boolee muy jaamu yàlla jaar ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéral pas-pasam ba sori lépp luy nuroog bokkaale wéral ak jaamu yàllaam ba sori lépp luy nuroog biddaa ki mucc ci yu mel noonu boole loolu kooku moom la wax ne kii ci almuttaquun la bokk kooku moo bokk ci wàllu yu yàlla yi ñooñu la yàlla wax ne bu ëllëgee duñ jàq duñu tiit duñ ragal kon yàlla nu borom bi tabaraka wa taala boole ci ñooñu allahuma arzuqna taqwa wa mujibaati alkaramati wa zulfa واعصمنا من موجبات الفتنة والبلوى وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر أولياءك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة